ci yenn yi. ci yenn kaay yi. El Hadji ak El Hadj taxaw nañu temm ngir jàkkaarloog ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di yoon la bañ kay mooy kàddu yi nga xam ne rek jotoon na ko yëkkati ci maanaam daal milliards yi nga xam ne rek day jóge biti réew dañu koy dugal ci réewum Sénégal te mu jëm nag ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ko li nga xam ne rek moo di mbëkk meeg yu ni mel yéene bi duñu xamal ne jamono ji kay ñoom kay taxaw nañu temm ngir jàkkaarloog jàkkaarloog ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di nguurug Sénégal yéen i kaay gi nga xam ne kay a gi du ñu xamal ne mbir moomee kay noonu la demee leneen loo xam ne na mu demee doy na waar lool ci réewum Sénégal yéen i gi di l'observateur bi ñu xamal ne jàngoro covid 19 gi jamono ji ni nga xam ne noonu lay doxee daaw na lool maanaam daal màkkaanu jëwriñ yi nga xam ne moom la ñu lépp loo xam ne jëm na wàllu yaram ci réewum Sénégal la joxe ak nga xam ne moo am wute ni nga xam ne rek moo di lii faatu ci réew yi nga xam ne moom moo di covid 19 gekk tolluwaay gi ci réewum Sénégal source ma parrain ba moom kay di xamal ne ma cee daal ñeenti kaddu yi nga xam ne jotoon nañ leen koo dégg ci nguurug Sénégal amul lenn loo xam ne

benn waay boo xam ne jaaykatu yàmbaa la yéene kaay gi duñu xamal ne yére jigéen daal la sol ba mujjee jàpp kooku yi nga xam ne moo di jaaykatu yàmbaa bi El Hadji Ousseynou Ndiaye